هنيئا لإبراهيم لك هلال هلال بدا للناذرين جماله هلال ربي فيه جاء محمد وتم لنا البشرى وأما نوال tedd yi teew yépp jóge fu nekk ci àddina bi ñu leen di nuyu bu baax di ñaan yàlla seen bés yi ngeen def ci Mérina ak feneen fu dul Mérina lu mel nii te defu leen ko lu dul rekk ne liñ jaayanteeg yàlla ak li yàlla jaayanteeg ñun dinañ ko dëggal suñ jëmm yaa ngi nii suñu alal yaa ngi nii suñu waxtu yaa ngi nii suñuy doom a ngi nii suñuy baay a ngi nii suñuy set ngi nii ñépp fang nañ leen ñëw ci sa ëtt bi nga xam ne yaakaar nañ ne dinañ fi amee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax Cheikh Ibrahima wax ne fii benn gàmmu ne yónnant fanaan na fi fanaan boo xam ne fii ci mbar mii bàyyi nee na yonanti fanaan na fi fanaan boo xam ne su koo fanaanee ten lu dul fii fanaan boobu ba tey daggut incha allah te du dagg ndax la ko waral woon mu fanaan fi ba tey moo fi nekk rek di ko waral mu di fi fanaan bon fanaan boobu mu ngi fi ba tey bon yàlla may nañu ñu ñu tàggat suñu bopp ñun ñëpp ak suñu no ak suñuy bakkan ak suñu lu di am rek ñu tàggat ko pour ànd ak bàyyi ci yar boobu ñu doon yar ci bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lañ nekk ci la ñuy def moo tax bu yonentu waxee ne kenn du mu bëgg feeg ma gënalu ko boppam dëgg-dëgg lii yëpp wane nañ ne yow yonent yaa ñu gënal suñu bopp yow yonent yaa ñu gënal suñu bopp ndax bi sa bis jotee ku nekk jóge na fu nekk joxe boppam joxe alalam joxe lu nekk tukki tukki yoo xam ne tukki yu métti la tukki yi lu nekk mën na cee jaar waaye loolu yëpp ragaluñ ko faalewuñ ko nañ àgg place boo xam ne óor nañ ne bu ñu fa àggee xetu yonent dinañu xeeñ te ak ku am xel am am bakkan mën a nokki di nga gis ne xeet yonent kañ na la ah yal na ñu ko yàlla kañalal ñun ñëpp fii ci àddina yal na ko yàlla kañalal ëllëg ëllëg ci àllaaxira ñu gërëm leen ci bu baax a baax ñaanal leen yàlla ak ñaanal suñu bopp ñun ñëpp amuñ dara lu ñuy wax yow yàlla ñu ngi nii ay jaam yu amut mënuñ attanuñ yow rek yaa am yaa mën yaa attan yal na ñu faree foofu fépp fu ñu faree ñàkk yal na ñu yal ko faree ak sa am fépp suñu faree ak tële yal na ñu ko fekk ak mën fépp ak ñàkk a xam yàlla ñu ko fekk yàlla ñu ko faree ak sa xam-xam yow yàlla yaa am loolu yaa ñu ko defal yow yàlla xale yaa ngi nii yu ndaw jógee fu nekk ci àddina bi dara jëleewu leen lu dul ñëw rek beesal seen bopp gën sa yonante woon ne yow lañu àndat yow yàlla yàlla bu leen bàyyi yàlla bu leen wëcc yàlla yàlla nga leen taxawu niñ taxawoo sa guddi yonante bii guddi Cheikh Ibrahima gii ak seen kattan ak seen dooleek seen mën-mën yow yàlla yàlla bul sànk loolu ci ñoom muy barke muy dund boo xam ne dañ ko yëg dañ ko gis yónnante leeral seeni xol leeral seeni xel leeral seeni bëgg-bëgg loolu yëpp moom lañuy ñeen ñaan yàlla di ko xaar ci guddi gi te incha allahu yàlla may nañu ko parce que fang bii ñu yàlla fang ñu daje si fii fanguñu rek ngir ngir euh, laayiban wala wan yàlla ëpp na loolu waaye daf ñoo fang fii pour façon nit bu nekk ñu daje feeg moom ñi ñëw fii lu nekk ci seen biir lu nekk ci seen biir indi na wali yu yàlla yaa ngi fi olamaa wu yaa ngi fi buur yaa ngi fi nit ñu kawe ñaa ngi nit ñu gën a kawe ñu gën a baax yépp yàlla tànn na leen indi fii te yàlla dajalewu leen rek pour ku nekk rek dañuy bi mu jeex waaye daf fii des ak ngëneel ak mbaax ak yëkkati woo xam ne ku nekk dafay nekk ci sa bakkan doo ko fàtte ku nekk dafay nekk ci sa bakkan doo ko fàtte ndax boo fàttewut lu baax rek xamal ne yaa ngi dund lu baax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 rafetal seen càkk ni ngeen di sàkkoo rafetal ni ngeen di utee rafetal itam ñu ngeen di xamee ndax doomu aadama munta sottal dara te tabaxu ko ci kaw xam-xam boo xam ne xam-xam bu wér la jàngantu du xam-xam jàngantu rek licence doctorat nangam loolu yëpp du xam-xam xam-xam nuur la boo xam ne yaqzifullaahu fi qalbi man ca min ibaadihi yàlla koy sànni ci xolu jaam bu ko neex yàlla na ko yàlla sànni ci suñu kol yàlla ñu ko yàlla sànni ci suñu xol yi dirigeant yi itam ñu xam naka la ñuy amee naka la ñuy nekk nit ñi naka la ñuy amee seen réew réew boo xam ne bu sell la bu rafet la boo xam ne sénégalais bu nekk dina yëg ne vraiment am na coppeeku goo xam ne ci suma dirigeant yi la bàyyeekoo te loolu yëpp nag mu ngi am bu population jàppee jàppale autorité mi bu ko jàppalee rek dëgg-dëgg mën na koo jox fit mën na koo ñemeloo ba lu lu mu def rek bëgg a def lu ëpp loolu waaye su fekkee lu mu def rek nga ne baaxut baaxut baaxut baaxut yow yàlla li may baaxut yow yàlla li ma may baaxut yàlla def ko yàlla def lay won ne loolu baax loolu ma may la te gërëmoo ko da dama lay dolli lu la gën a toroxal nag te doo ci mun dara yàlla ñu ci yàlla musal ah nangu nañ nangu nañ nangu nañ li xew yépp ci président Macky ci seen relation ak moom ak relation am ak ñëpp ci àddina bi nangu nañ ko d'accord nañ ci nu doxalee rek ñu ngi koy ñaanal yàlla mu am tawfiq pour Sénégal mu am tawfiq pour Sénégal mu dimbale Sénégal mu génne Sénégal ci lii mu nekk mu génne Sénégal ci ñàkk yo laaj yuñ ko dem nga ngénte dem nga laajuñ ko dañ koy laaj marché bi fu mu toll dañ koy laaj tali yi nu mel dañ koy laaj économie bi fu mu toll loolu lañ koy laaj loolu lañ koy xisaabee waaye demoo ngénte jàmbur eh, kenn ko ko xisaab kenn bokkul ci bokkul ci programme am te loolu dafay aajo ñun ñëpp nga xam ne ñoo bokk réew mi Sénégal réew mu bari réewu wax la ñëpp a ngi ngalal ngalal rajo physio comme socio ah réseaux yi boo ubbee ngalalalal ngalalalal nga te kenn waxu dara da ngay wax rek pour ne maa ngi nii te waxoo dara ah nañ jéem a góorgóorluwaat ñun ñëpp ñu delluwaat ñu delluwaat ci suñuy tànki ay maam ak i ndax ñu mën a liggéey liggéey boo xam ne dina mun a lii ñu donn te lu rëy la buñ ko mënta dolli itam bu mu wàññoo ko ci suñu loxo te yàlla bu ko wàññi ci suñu loxo li koy dolli nag mooy ci jàng ngeen tollu jàng leen bu baax a baax jàng leen am yar am teggiin yaatal gan ñi gan gu ñëw ak nu mënti ñëwee fonk leen ko yëg leen ko parce que dafa ñëw rek pour liggéeyal seen dëkk pour taaral seen dëkk ak nu man di ñëwee na ñëw ak ay motocyclette ñu jiitoo ko tout nangu leen ko rek parce que dafa ñëw pour taaral seen dëkk bu seen bàyyi oote wutoon du ñëw bu seen maam oote wutoon du ñëw bon nag na ngeen fonk gan yooyu nga xam ne dañuy ñëw rek pour rafetal seen dëkk ngir yaa njël seen dëkk bu ko defee loolu dina leen gën a may ngeen mën a tabax li nga xam ne moom la seen maam yi tabaxoon du ngeen ko mën a yokk waaye di mer di saaga nit ñi di leen sànni ay xeer loolu yëpp manqué rek la moo ko def manqué rek man nit ku manqué rek mooy mer di saaga waaye nit ku mat buñ ko saagaa sax dafay kontaan parce que xam na moom lu tax ñu saaga ko ah xamoo nit dina am lu ko dal mu naan dañ maa def dañ ma fekk kenn defu la yow rek yaa def sa bopp boo jaaree fi nga war a jaar rek amul dara looy set sa àddina looy ragal wala looy tiit wala looy mer waaye boo jaarut foo war a jaar nag ba du set rek yaay bàyyi sa bopp lu nekk ñu la koy teg nekk la koy wax bon nag loolu yëpp da ngeen ko wattandiku ngeen yar seen bopp bu baax ci li nga xam ne moom ngeen doon ci seen maam ak seen maam yu mag yi ak seen baay yi ak seen nijaay yi yéen ñëpp kawe ngeen doon yéen ñëpp mbaax ngeen doonu yéen ñëpp yëkkatiku ngeen doonu bu leen fi nekk di xool keneen lu amal lu mu nekk nekkuñ fee lu ëpp li ngeen nekk nekkuñ lu gën li ngeen nekk nekkuñ lu gën a kawe li ngeen nekk ah parce que xale 12 ans tari alxuraan ah bërki démb rek sama xale suma doom nii la yem bu tuuti may tari euh, euh, wal mursalaat ñëw ba agsi ci benn laaya ma damm ko mu ne ma papa du noonu de ma ne ko ah naka la mu dal li may wax naka la lu ko si man rek ma dal di ànd ak moom ci li mu def bon loolu mooy suñ doon loolu mooy suñ doon loolu la am ku ko ci am am nga loo xam ne kawe nga mat nga bokk nga ci nit ñi boo ko amut itam na àddina yëpp nekk ci saroon tànk amoo dara amoo dara ah yal na yàlla dimbale leen yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla la yal na yàlla màggal Euh, seen seen liggéey def ko muy liggéey bu barke fàttali ko fàttali leen itam ansaaru diin ansaaru diin ñun ñëpp nañ ci adhéré parce que mooy moo ñuy boole moo ñuy boole lu nekk mën na cee génnee ci ci ci teraanga ci kawe ci mbaax ndax yàlla moo ko santaane nañ dellu ñun ñëpp ci ansaaru diin ñu teg ansaaru diin ñu dimbalanteeg moom buñ buñ ko defee danañ gis njëriñ boo xam ne xamuñ ko woon pour lan parce que ansaaru din bàyyi wax ne def leen lu dugg leen ci biir ah même ñaari nit ngeen dugg leen ci biir bon nag buñ koy def dañuy topp ndigal lu bàyyi te ku topp ndigal da nga gis njëriñu topp ndigal lu muy tekki kon ñun ñëpp maa ngi leen di oo ñëpp maa ngi leen di oo commencé ko ci Lamine Makki Ahmad Khalifa Chafiew yéen ñëpp maa ngi leen di oo ngeen adhéré wu ci biir ansaaru diin adhéré boo xam ne da ngeen bëgg mu yokk mu jëm kanam defuñ ko pour xeex defuñ ko pour xuloo defuñ ko pour euh, wujjantee kenn dañ koy def rek parce que yoon la boo xam ne dañ ko war a def ndax ñun fii dañoo bokk ci àddina bi dañ cee war a bokk dañ ci bokk nag ak yoon boo xam ne ku ñu sànni bant itam tant pis sànni ba na ba mu neex ko ku la saaga na la saaga ba mu neex ko lu mu lay wàññi wàññiwu la dara mais yow demal fi ngay dem rek ah euh, euh, nu ko waxee te te te القافلة وتنبح الكلاب ah alkalaabu te ndaw wa kaatulatu te siir mbaw mbaw mbaw mbaw rek waaye yow jëmul fi nga jëm rek yàlla ñu fa yàlla àggali yàlla ñu yàlla dëgëral yàlla ñu yàlla may bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla may suñu aju gi ci bàyyi yàlla na ko yàlla gën a dëggal parce que amul góor ci àddina amul góor ci àddina vingt vingt euh, bi ñu génn dëgg-dëgg amul ku ko marke ci diine ak xam-xam ku enn Cheikh Ibrahima radiallahu taala anhu yal na yàlla yokku leeram ñun tamit yal nañu yàlla taas ci barkeem xale bi doon jàng léegi doomu na jour bi jàng bi mu jàng mu ne na jour waroon naa mën a toog dina xam ni daf doon jéem waaye kii yàlla feeñal mu mën ko yépp yépp defee leen ko noonu fu seen bàyyi tollu rek bu ngeen fi toogee nañ fàtte seen bàyyi ndax li ngeen def ndax loolu yal na leen ko yàlla may yal na leen ko defal salaamaaleykum ah du moom la ubbee waxtaan bi xalifa xalifaa ngi leen di nuyu mu ngi leen di nuyu eh, ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla delloo si jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.